addiya e cey Seex Moodu Rokhaya yaaye salaat ji addiya e moo tax ba ñëpp di roy Tuuba li abdin murid la Bamba wa qudim murid moo mu soññ kuy murid ci addiya e mooy mbir mu rëy murid yi laay nandar daaru salaam di leen xibaar dañuy nuyu bokki taalibe yi nga xam ne nii noonu seetaan te di leen soññ te di leen woow ci bis bu tedd bi nga xam ne ku nu gis at mi saa yu agsee ci le janvier xel yëpp dañuy demaat ci Daaru Salaam ci bis bi nga xam ne Serigne Modou Rokhaya da ko tànn tànnal ko mboolam njaboot Serigne Gaawaan gépp ngir nu gën a takkaat sunu laxasaay yeesluwaat ci Seexul Xadim bis boobee nag moom lañ dëggmal noon njabootu Serigne Touba gépp njabootu Serigne Gaawaan gi ci turu Serigne Modou Rokhaya Serigne Cheikh Anta di jëwriñu kër Serigne Modou Rokhaya waaye nu ci soññiwaat bis bi nga xam ne nañ ko ci fàttaliwaat bu baax muy jàmbaar ju tedd ju nga xam ne ku ne xam na pas-pasam ci yoon wi ku ne xam na aw doxinam ci yoon wi ku ne xam na ak gëmam sëñ ci yoon wi kenn ku ne xam na ak bëgg bokk ci yoon wi kenn ku ne ak njàmbaaram ci yoon wi kenn xamoon kenn ku ne xamoon nga ab yar bi mu daan jàngale ci ay biim loolu jàmbaar jooje nag saa yu uh, weeram ñëwee dañ ciy daal di yeesluwaat di ci dajale ay addiya di ko jox ki fi nekkal Seexul Xaddim bis boobee nag moom la ni wootee waaye bis ba nag dañ koy defee daaru salaam mooy bis bu mag bi mooy le 7 janvier waaye le cinq mooy jiitu moom la mbokkum taalibe di donga ci kër ga di njaboot ci kër gi di sëriñ Mbàkke Jéey ànd ak ay bokki Bawolam yëpp ak bokki taalibe yi mu dëkkal yëpp ak bokki daaru salaam yëpp bis boobee nag moom lañ dëgmal tàmbalee ko le 5 janvier ca gaawaan daaru salaam di fa ubbee liggéeyub sëriñ Modou Rokhaya bi nga xam mooy waajtaayu addee daaru salaam ji di ci woo mboolem koo xam ne ni yaa ngi bii ashadu an la ilaha illallah ak foo mën a bokk ak tarixa boo mën a doon noo ngi sàkku bis boobee noo la cay woo ca gaawaan samedi buñ fa jógee la set nag mooy bis bu mag ba ci kër sëriñ Modou Rokhaya noo ngi ci woo ñëpp bàyyiwun benn tarixa mbooleem koo xam ne ni rek yàlla ñor na la Serigne Touba ñor na rawate ngay ab jullit noo ngi lay woo ci bis bu tedd boobu rawate na suñu bokki Baye faal yi rawate na suñu bokk laayeen yi suñu bokk ñaseen yi bokki xaadir yi bokki tijaan yi bay bàyyiwun fenn noo ngi leen di woo kenn ku ne bis boobu nga xam ne jullit yàlla yëpp ko bokk. di sant mbokk yi fi teew yëpp di leen nuyu di leen ziar comme ni ko sëñ Ndiamtu présenté léegi du jar ñu si jaar day gën a guddi su ko defee rek mu mel ni bis bu tedd bis bu màgg bis bu am wàcc waay ci lislaam ji ci yoonu murit waaye nag rawat na diggante Daaru Salaam ak Gaawaan di bisub sunu nijaay ji sëñ Mbakke Jéey di bis bopp mi ngi koy defal. jàmbaar ji si matu raqiya radiallahu taala anhu moom la ñuy waajal ngir ubbee ko wala gàttandoo ko bis boobu ñuy jébbale Xadiija Daaru Salaam ni ko sëñ dem tu waxee nag bis boobu bis la boo xam ne bàyyiwuñ kenn kenn ku di ab jullit ñëpp la ñu woo ak fu jullit mën a nekk waaye nag rawat na ñi nga xam ne bii ñoom ñooy dawaa ir yi nekk diggante Tuuba ak Mbàkke ak Daaru Salaam waaye nag rawat na ñi nga xam ne bii nag ñooy ahlul quran nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam na ne ñoom ñooy ahlullahi wa xasatuhu ñooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla fare ñoom la yàlla taf ca peggam cëral leen lum cëralul kenn dale ko ci daaray kaabil jii ci daaru salaam nga xam ne sama nijaay nee na yàgg naa gis ni ngeen di àndeek moom bis bi eh, ci Pastef ci yitte ci farlu macha allah rabbil alamin mi ngi leen ci woo yéen ñëpp dale ko ca ka jiite daara ja bàkk ca gën a ndaw ci at yëpp mi ngi leen koy yëgal donte sax jàpp na ne wax dëgg yàlla yëg ngeen ko yéen a koy bàyyi xel di leen ci woo di leen ci séenu bu baax a baax a baax da ngeen ko daan àndee mbaanu ko raw incha allah waaye ko ci mel ni sëñ maam la mu nga xam ne ko am taxawaay la ci bit bi ta defe naa ne daaw ñu ngi ko ko tuddee mu taxaw ci taxawaay gis bu ñëpp ràññee moo bi sëñ Mbàkke nee na mi ngi ko ci woo di ko ko yëgal di ko xamal ni bis bi bisama euh, di ko gën a dolle euh, bàyyi xel ci kaamil yi rek lu mu gën a bari ak ñaani incha allah ak mboolem seen daar yi nga xam ne ñu ngi ci diggante euh, Touba ak Mbàkke ak seen daara kenn di woo ñi nga xam ne ñoom la suñu borom dogal ñu féetewoo ci wàllum yëngu-yëngu yi ak wàllum jàppale soxna yaak tout tànk yi ak ñi nga xam ne bëgg nañoo liggéey sëñ Tuubaa ñu leen wax ay dawaayir muy daayira yi bokk na ca daayira yooyu daayira bi ñuy wax xidmatul xadim bu daaru salaam di ahibaawu sëriñ Moodu Roqiya bokk na ca ñooña daayira tasawuri soxaar ahibaawu sëriñ Xaamidun nekk fii ci marché ndigal bokk na ca daayira ya daayira nasrullahi di soppey sëriñ Cheikh Gaynde Mbàkke bokk na ca daaira ya daaira bii ñuy wax daaira xadaayiqul fadail bu mbakkee gaawaan ak association bii ñuy wax association ahibaul xadim nekk ci sanc yi ak daaira bii ñuy wax daaira ahlu dikrullah ci njiital sëriñ xarim Njaay di ci wooy daaira bii ñuy wax daaira ahibaawu sëriñ fàllu soppe sëñ fàllu ci njiital sëriñ màggat mbubb bokk na ca daaira yi nga xam ne sëriñ bi ngi leen ciy woo muy daaira nuurul daarayni njiit la di Serigne Kanté bokk na ca daaira ya daaira tazawudi sigaar njiit la eh, wala bokk soppey Serigne Cheikh Gaynde bokk na ca daaira yooyu daaira matlabul fawzayni bu daaru salaam bokk na ca daaira daaira ya daaira bii ñuy wax kuréel général daaru salaam ak daaira soxna Maam Anta Ndiaye njiit la di Baye Bada sanc daaru salaam ak daaira wala bokk waaw daaira wakaana xaqan bu gaawaan mbàkke ci njiital sëriñ Moodu Jëng jëwriñ e, di ko yëgalit moom sëriñ nee na daaira yi nga xam ne bii ñu ngi ci biir gaawaan bokk na ca ñooñu daaira bi ñuy wax daaira qodama sudiqin ak daaira bi ñuy wax daaira nuurul daarayni soppe yi sëriñ Saalix nekk ca gaawaan mbàkke ci njiital sëriñ Saalihu Faat ak sëñ Papa Siise ak sëñ Pape Ndende Diop bokk na ca daayira yi daayira bi ñuy wax daayira alxarakatu wal amal li quran al azim daara yi sëriñ cheikh li mbàkke sëriñ cheikh li fii ci mbàkke gaawan euh, ak daayira yi tasawudi saxaar bu euh, gaawan mbàkke boulevard ci jëwriñu kuréel ja sëriñ mouhamadul fadal ba boo ko defee nag euh, sëriñ nee na mi ngi koy yëgal ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñooy mbokkam yi di mbokki daayira daa daara tërbiye bi nga xam ne bi wax dëgg yàlla ñoom ñoo bokk ne ca daara ja moo xam ña ko fa féete ak mag la moo xam ñam fa féete mag la moo xam ñam maaseel ñoom ñëpp nee na mi ngi leen koy yëgal di leen ci woo euh, wax dëgg yàlla di am rafet njort bu baax ci neen ñu ko daan àndee nu ko raw danañ ko àndee noonu ren incha allahu rabbi muy waa ahlu tarbiya bi waaye nag nee na mi ngi koy yëgal mbokkam yi nga xam ne ñoo bokk benn métier muy mbokki euh, carreleur yi nga xam ne moo xam ña ko ca jàngal la ku ci mel ni suñ bàyyi nduur nee na mi ngi koy yëgal di ko ko fàttali donte sax mi ngi am yaakaar ci ne fàttali ko ndax bis bi bi sama Ah, nee na mi ngi ko koy yëgal di ko ko fàttaliwaat bu baax a baax a baax ak mbokk yi nga xam ne ñoom la seqal métier mi yëpp ne ca di ay jëwriñam ak ña nga xam ne moom mooy seen jëwriñ ak nga xam ne ñoom ak moom ñoo bokk yam ci mbir mi rek ñoom ñëpp xëy na ay njiit lañ yu ci jiite ay ndaw di lañ ca tette waaye nag di ko di ci di ci di ci soññi ak ah, sant ak gërëm waaye nag di fàttalaale ñi nga xam ne dañ koo jàppale lool ci bis bi surtout nag ci wàllum communication bi di ay soxna yu am pësteef yu am taxawaay yoo xam ne bis bi daanaka mën naa ne communication yi fu mu yegg rek ñoom seen loxo ma nga ca eh, di yaatal leetar yi bu baax a baax muy yegg fa mu war yegg ko ci mel ni soxna Ami Diouf eh, ma ngi koy mi ngi koy sant di ko gërëm di ko ko yëgal ak soxna May Silla ak soxna Diouf ak soxna Mati Ndour ak soxna eh, Sooda njaay ak soxna Astu Toob ak soxna Astu Diop Daaru Salaam sama nijaay sëriñ nee na daal ñii ak ñi nga xam ne xëy na seen tur jot a ñëw fii mi ngi leen ciy woo. di leen ko fàttali di leen ko yëgal bés bi nekk fii ci Gaawaan Mbàkke yemook 5 janvier 2023 incha allahu taala di ñaan suñu borom yóbbu ñu ca ci jàmm ak salaam eh, ba nu mu daan mel ci mbaax rek eh, bu del siwaatee mu gën koo mel lépp gën a taw tawféexe gën a jàppandi gën a yéwén suñu borom gën cee def tawféex joo xam ne bii lépp luñ ci amoon ci yiw rek ak i ngërëm lu ko raw danañ ko ci am ci barke maam Cheikh Anta borom Gaawaan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ila moroxro incha allah ginnaaw bu ñu santee suñu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santati suñu yaakaar dégg ëllëg Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul di nuyu mbokki jullit yi nga xam ne ñoom lañ janool ci jotaay bi yëpp leen ziar baax leen baalu àq di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mboole ñu ak njéggal ñaanal Cheikh Ahmadul Muntaqa suñu borom yokk fanam lool tamee ko ak wér ak mboolem njabootu Cheikhul Xadim bi yëpp ñaan gi ziar bi nag nga teg ci loxo suñu bunt muy Serigne Cheikh Anta moom Serigne Modou Rokhaya mu mel ni mbokk yi jiitu wax nañ li ëpp solo ci jataay bi bis boo xamante ni dañ koo baaxoo amal at mu jot suñu mbokk sunu mbokkum taalibe suñu mbokkum pas-pas di Serigne Mbacké Dieye nekk donga tarbiya Cheikh Modou Rokhaya am njukkal loo xam ni saa su nekk da koy sant mu Modou Rokhaya ci xolam di ko sant ci làmmañam fas yéene ko nag di ko fesal ci jëfam am ci ndigalul waaye juróom mu suñu bàyyi mbay Dieye ñu koy ñaanal yàggu ànd wér waaye nag ndigal la delloo ca Serigne Cheikh Anta mi nga xam ne tey moo fi Serigne Modou Rokhaya tamate ko lool ñu koy ñaaral ba suñu borom dolli kattanam ak manam ba li mu yéene liggéeyal Cheikh Modou Rokhaya mu def ci lu kawe njortam bis bi nag war a nekk la 5 janvier 2023 fii ci gaawaan Mbàkke jigéer Baye Mbaye Dieye bis boobu nag ni ko dem Demba waxee rek bis la boo xam ne day waajal bis bu mag ba nga xam ne moom la Serigne Modou Rokhaya xalaatoon di ci delloowaat a liggéeyal Serigne Touba ndax musta teg ci laxasaayam ci liggéeyal Serigne Touba waaye dafa jàppoon ni moom kuy liggéeyal Serigne Touba waroo am bis wala waxtu woo xam da nga ciy noppalu da ngaa war a jël sa dund gépp jeexal ko ci liggéeyal Serigne Touba moo taxoon Serigne Modou Rokhaya sosoon bis boobee àndoon ko njabootu Serigne Modou Mamoun waaye njabootu borom gaawaan gi yëpp bis boobee nag mooy le 7 janvier di addiyee daaru salaam nga xam ne moom la ñuy dajale yéte ko fi nekkal Serigne Touba mu war a dem nag Cheikh Amadou Mountakha yàlla na fi yàgg te ànd ak wér Serigne Mbacke nag wax ni bis boobee kon bisu Serigne Modou Rokhaya la dama koy sant te xam na ne Serigne Modou Rokhaya digganteem ak njabootu ñi mbokkaloon Serigne Modou Mamoun digganteem ak ñi mbokkaloon Serigne Gaawaan lépp dafa taxoon moo tax nag mooy mu yaatal ko ba képp koo xam ne njabootu Serigne Gaawaan nga ak noo bokk ci maam Cheikh Anta rek woo di la ko ndax xam na ni ku dégg bisub sëñ Modou Rokhaya rek di di di ko bàyyi xel ngir kóllëre goo xam ni doxoon na si diggante ak sëriñ Modou Rokhaya moo tax mu tudd kii ñenn ci njaboot gi nga xamante ni ñoo nekk fii nekk njaboot sëñ gaawaan tàmbalee ko ci sëriñ Sidi moom sëriñ Ibrahima daal ne mooy xalifa maam Cheikh Anta ñu koy ñaanal yàgg lool ak wér ak Serigne Abo Mbacke moom Serigne Moudou Mamoun xalifa Serigne Moudou Mamoun moom Serigne ñu ngi koy fàttaliwaat bés bi ndax at mu jot njabootam dañ ciy teew waaye Serigne euh, Sidi moom Serigne xalifa Serigne Amidoun ñu koy fàttaliwaat bés bi ak mboolem njabootu Serigne Amidoun yëpp. Euh, Serigne Sam Mbacke moom Serigne Mbacke Astou moom it Serigne Mbacke mi ngi koy fàttaliwaat bés bi ak mboolem njabootu Serigne Mbacke Astou gi waaye dem Serigne Amidou Sikap ak euh, mboolem njabootu Serigne Mamor Sikap ñu ngi leen koy fàttali bu baax Serigne Sidi Mbacke ak mboolem njabootu Serigne Dame moom sëñ Modou Mamoun ñoom itam sëñ Mbacke mi ngi leen koy fàttaliwaat bu baax sëriñ Abdou Diandoom mi nga xam ne nag ren dañ ko jagleel bis bi ndax at mu jot sëriñ day tànn kenn ci ñi nga xam ne ñoo bokkoon ak sëriñ Modou Rokhaya mu tudde ko bis bi ren nag sëriñ Abdou Diandoom lañ koy tudde kon ñu ngi koy fàttali ñu ngi fàttali ak njabootam di sàkku seen teewaay bu baax a baax waaye sëriñ Cheikh Abdou xaalifa am di moom itam sëriñ ñu ngi koy fàttaliwaat bis bi bu baax sëriñ Sidi Mbacke Baye Fall ak mboolem njabootu alaaji saam ci ay magam ak rakkam Serigne nee na mi ngi koy fàttaliwaat ak Serigne Sidi Mbacke moom suñu Ibra moom alaaji daam mu ngi sëñ mi ngi koy fàttali ak rakkam sëñ Mudu Roqaya ak sëriñ Abdul Baqi sëriñ Mbàkke nee na mi ngi leen di fàttaliwaat bis bu baax di ko fàttali itam mboolem njabaru sëriñ Moustapha Ceytu gi yëpp ñu ngi leen koy fàttali ci njiitul sëriñ Mudu Maamun moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Moustapha Ceytu ak mboolem njabaru Cheikh Moustapha Ceytu gi yëpp sëriñ Mbàkke nee na bàyyi ci kenn ku ci nekk mu ngi lay xamal ne bis bi sa bis la ndax bis sëriñ Mudu Roqaya seen bis la ñoom ñëpp waaye itam baaxoo ci at mu jot ñuy fàtt ñu koy tuddee jëmmoo la naa ko léegi Serigne Abdou Diando moom Serigne Modou Mamoun rek Serigne Modou Roqee di wëllëreem moom lañ ko jagleel waaye itam moom lañ ko tuddee waaye itam di jagleel koy ite ku ñox soxna maam Diarra géey di wëllëreew Serigne di soxna su am passeef tax Serigne ba eh, jox ko cër ci bis bi. di ku itam ak jokk kóolëre ci ñi nga xam ne ñoo fi bàyyeekoo di leen ci fàttaliku di leen ci ñaanal Serigne Mor Sylla Njarab ku nga xam ko ci Daaru Salaam ak taxawaayam waaye itam soxna Soda moom Serigne Moustapha Ceytu te Serigne Amdi Gaawaan yor yore woon ko waaye itam Serigne Takku Fall ñii Serigne Mbacke dafa xam ne dañ leen jagleel ak ñaan ci bés bi ak fàttali leen di leen rendre hommage. Euh, naka noonu itam soxna Faati Mbacke moom Serigne Sidi bu Serigne Amidoun da koo xam ne dëgg yàlla daa bàyyi woon bés bi xel lool. mooy boole ñi nga xam ne ñu rendre hommage di ñaanalaale yàlla yokk si yërmande ak seen leer ci barke Cheikhul Khadim ñu koy yëgal seen njaboot ñoom ñëpp aussi di ko yëgal autorité itam ñi nga xam ne ñu ngi koy yëgal mi ngi koy euh, euh, ñu ngi koy yëgal di ko yëgal itam honorable député Abdoul Mbacke Ndaw ndax am na jot am na taxawaay bu mu ciy amee waaye di ko yëgal Alaaji Mor Ndiaye conseil économique social et environnemental euh, ñooñu moom mi ñu ngi koy ñu ngi koy fàttali daa itam ci biir ñaan googi nag ñu jagleel ci suñu waajur woo xam ne dafay bàyyi ko muy bàyyi Aïssa jenn jóge fi bu yàggut bokkoon ci mag ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci dëkk bi doon àndoon ak sëñ gaawaan ànd ak sëñ Modu Maamun ba yàlla dogal ñu bàyyi ko fi bu yàggut di waajur ci ñun ñu ngi koy fàttaliku wàlla ci bés bi di ko ci ñaanal bés bi daal mi ngi noonu comme mbo lañ doon tuddaat kilifa yi rek ngir fàttali delloo ko ci wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin waaye xam nañ ne du bés bu kenn di fàtte te léegi sëñ demtu woote yaatu na sëriñ Basiiru kazalika ci waaye itam ñi nga xam ne suñuy kilifa lañ suñ gestoo gis leen day yokk suñu pas-pas ñu ngi leen ci mi moo tax ñu lañ ko doon fàttali di ñaanal Serigne Cheikh nag yokk fanam yokk wéram yokk ba li muy liggéeyal Serigne Touba suñu borom gën koo jaa gën ko cee may ndam ci barke Cheikhul Khadim mu ànd ko Cheikh Amadou Mountakha waaye ànd ko ak mbooleem taalibe yëpp ñu daal ñu ngi yeesalaat pas-pas yi yeesalaat pasteef yi nosaat suñu jëmm teg ko ci loxob Serigne Cheikh Anta mu jibal Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi képp kuy dégg sunu kàddu ngi leen di nuyu baax di leen ziyaare di leen jox seen wàccuwaay di si jiital ci nuyoo bi sunu kilifa sunu sëriñ sunu wasila sëriñ Seex Anta Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi te wér tey fas yéene wax ci ndigalam rekk jëfe ndigal ndax bis bii kat sañun cee def dara te amun ci ndax ti ñuy ci moom yem ci moom ndax ni ma koy faral di waxee rek bu ne woon bàyyi ko ñu bàyyi ko rek bu ne ñu def ko rek ñu def ko yàlla dogal na bi ñu ko nammee di ko def ba tey jii euh, noonu la ci amee itte safoo ko lool bëgg ko lool moo nu ci gën a xiirtal ba nga xamante ni euh, lépp lu luñ ci def rek dañ koy xeeb ba su jàllee rek ren ñu tàmbali ko waajalaat déwén def ko muy suñ pas-pas di suñu itte di ñaan yàlla muy sunu jaamu yàlla goo xam ne ci kaw suuf yàlla na yéex ba buñ fi bàyyi ko sunu njaboot di ko wéyal ndax dañoo wax ni euh, jamono nga ne ci nga bënn teen nit ñi di ci jariñu baax na nga tabax jàkk ñu ciy julli baax na nga euh, jëmbat garab ñu ciy keru baax na lu mel niit nga taxawal ko ba yàlla dogal boo fi bàyyikoon muy wéy xéewal yooya di la fa fekkit baax na di ci ñaanal ñi jiitu kon def gin koy def ak jaamu yàlla rek lañ ci lañ ci jublu ak bëgg-bëgg ci sëriñ bi moo tax ñu di ko def du du dara loo xamante ni mbiru àdduna wala dara ba tax ñu di ko def xëy na xol bi bëgg bëgg pas-pas ndax yàgg nañ koy def ci sunu xol ak di wàcc kaamil ca kër ga ca yéen ba fa ab yéen di nekk yéenu suñ mu roqee di neexal gone yi di leen wàcceeloo kaamil di ko di ko jaayante dem ba ba affaire bi ëpp doole nag ma ma tàmbalee ko ci ngont ba fi mu toll nii la quatorzième édition fukki at ak ñeent ñu di ko taxawee ci kër ga bis bu ñëw rek gën a kawe njort bis bi nag liñ ci gën a itteel mooy njàng arxuraan mi ak xaside yi ndax loolu boo dee defuk ñaan rek di liggéey bëgg mu nangu ak bernde yi loolu nga ciy jiital ndax xumbaay beeg yooyu yëpp amu ci solo li ci gën a am solo daal mooy loolu ñu gis comme ni ko ki ñu fi jaar ñëpp waxee rek képp kuy dégg sunu kàddu daal soo ko déggee rek na ngay jiital mooy ñaan ñaanal rek na ci arxuraan jiitu ñaan ñaanal ñi nga xam ne moom la ñu koy wooteel sëñ jiital ci sëñ mu roqee ak ñin ciy fàttaliku ñëpp te ñaanal ci sëriñ bi nga xam ne moo fi nekk te joxe ndigal li di sëriñ Cheikh Anta mu yàgg fi te wér lool ak xalifa yi nga xam ne ñoo fi nekk sëñ Siidi ak sëñ Abo ñi kilifa dëkk Daaru Salaam ñoom ñëpp ñu yàgg fi te àggale seen yéene ci liggéey bi mu mel ni ak cant la rek ndax ñi fi jaar moom matale nañ lépp daanaka bu mu waxutoon lépp day mat kon daanaka sant moom la ñuy def nii ndax suñ xol sedd na bu baax a baax fii ñu ko defee it di daaray sëñ Modou Rokhaya ji itam moom sëñ Modou Rokhaya rek moom moom lañ ko defal parce que yéen fee liggéeyal bu baax a baax kon bu yàlla dogalee jànkatu xasida yi yëpp ñëw teewe ko ni ak ak sëñ Basiiru nga xam ni moo yor wàllu alxuraan mi ak sama kilifa yi sëñ Maamun sëñ Daawda ñoom ñëpp ñëw teewe ko ba ci sëñ Modou Bousso mi suñ demtu mi nga xam ni jëwriñ la ci liggéey bi ban koy tàmbali dum ngontu ba tey ñoo ko yàgg di ànd mosu cee tàyyi benn yoon toujours moom ciy gën a sawar du dërëm bu ci am du dara day def te yàlla tax rek bu bis bàyyit noonu lay daggee ab liggéeyam ñëw taxawu ko ba mu mat sëkk du du lenn loo ko jox walla lenn kon loolu ñuy def noonu yàlla rek moo tax ñu di ko def waaye xam nañ ñun ñu koy def xam na li tax ñu di ko def kon ñi ngi ñaan yàlla yiwun ci am rek mboolem ñu fay ñëw ñu bokk ko wala ñu ëpp lañu ci te yàlla nangul ñu ñaan yépp rek ak liggéey buñ ci liggéey te yàlla yàggal fi suñu waajur wi tam yàlla gën ko yàggal wéral ko ba yéene yi am ci liggéeyal sëriñam bu tedd ba sëñ mu droq ya yàlla defal ko ci tawféex bu baax a baax ndax lii itam tindigalam lañ koy defee muy baay mbay jéey ñu ngi sant xarit yeeg wëllëre yeeg jàngkatu xaside yi ñëwoon teewe li appel bi yëpp rek ñu leen di sant bu baax di sant waa asalaami bi itam nga xam ni waa sit bi di sunu xarit suñu Fallou galasi la yor ko sëñ Fallou it yabal yabal leen fi at mu jotit noonu la ñuy jàppe ci liggéey bi moom itam ndax lii ñuy def daanaka ci moom lañ koy royee ak cant ci moom lañ ko njëkk a gisee ba di ko royee comme sëñ Fallou Galass Sylla ñu ngi koy sant bu baax ak sëñ Daam Jóob mi xasaayit moom itam site internet am teew na moom it ñu ngi koy sant bu baax moom it mu mayaale ñu woon tey am ngont fii ci kër gi kon moom sant nañ ko baax gërëm ko ak mboolem jànkat xasida yi fi teew yépp rek ñu ñaan yàlla àggaliñ ci jàmm ak salaam yàlla nangu ñaan yëpp bis bi nag alxamis lay doon le 5 janvier 2023 gaawaan Mbàkke kër Baay Mbay Jéey ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwun kenn li ñuy wax rek ku ku am ñëwal ku amul ñëwal ndax woote gi ñuy woote du bëgg lu ñu ci jox liñ ciy def mu yàlla dénk nañu ko fi mu toll nii bu doon suba sax man nañ koo def kon dañuy ñaan rek di ko ànd ak ñëpp di ko teewe rek di ci ñaan yàlla nangu ñaan yi loolu daal lañ ci jublu incha allah ñaan yàlla ñu yóbbu ca jàmm jërë ngeen jëf. bis bañ daan wooteel jàmbaar ji ak sin ñuy farluwaat murid yëpp farluwaat rek rawatina waa Daaru Salaam ak gaawaat xanaa bis boobu mooy sunu bis ñun waa Darou Salaam gaawaan nu gën a takkaat sunu laxasaayit fas yéene ko defee nan ko daan defee ci barkeb Seexul Xadim eh, di di ci ñaanal nag mbooleem wajur yoo xam ne dëkk nga Darou Salaam gaawaan ci bokk ci njaboot gi ñëpp kilifa yi fa nekk yëpp yàlla dogal nu jiitu ñëpp bis boobee ëmbaale leen ak ñaan ci ñoom bàyyiwuñ ci kenn eh, mel na soxna Faati Mbàkke moom Serigne Sidi moom bi Amidou bokk na ca ak sëñ Fallou Diop eh, chef de quartier bokk na ca ak mboolem ñoo xam ne kilifa yoo xam ne yi ñu xam ak yu ñu xamul yëpp jullit yàlla yëpp la ci sëriñ yéene bis amu na loolu lépp kon na nga koy na nga koy bàyyiloo xel jullit yàlla yëpp di siyaar baax bokki yi nag moom it kenn mënu leen ci ginnaaw ba ji jiitoo xaside yi mooy mottali liggéey bi yàlla yi noo ngi woo mba ahlu xasaayid yëpp mel ne sëriñ Daam Diop mi ngi fi teew na nga ko ci soññ bu baax nam ci daan taxawee sëriñ Cheikh Saw de mi ngi nii teew noo ngi ko ci soññ bu baax sëriñ Baara Ndiaye jànkatu xasaayid moom it noo ngi ko ci soññ bu baax sëñ Fallou sikkurulaay na nga ko ci soñ sàllu ndar sikkurulaay na nga ko ci soñwaat bu baax it xam ne bis bi moom turu yàlla ak xasida ak alxuraan lañ ko fas yéene dundee ba mu jeex tàkk ndax loolu moo bañu naa daaru salaam ci aljana fa Muudu raw nga say morom ngir yaa sa borom.